maaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu di nuyu mbokk amateurs yi di nuyu aussi tamit euh, mbokk Sénégal di nuyu aussi tamit amateuru làmb yëpp ginnaaw bi ñu sant yàlla ñu ngi julli si yoon bi gërëm suñu ñaari waajur di sant ñi nga xamante ni tey jii nii ñooy axlu làmb tey nag ñu woote fii ci fi nga xamante ni tey mooy euh, point E fas yéene tënk fii benn point de presse par rapport ak li nga xamante ni tey fan ok fii ci Chez Malika waaw muy restaurant bu mag nekk fii ci Fann Hock waaw di wax ni rek li ñu fi dajale tey lenn rek la muy dañu nekk ci làmb di ay amateur yàlla dogal li nga xamante ni tey mooy lié nit ak li nit muy li nga xamante ni tey mooy làmb lié nañu ak ñi nga xamante ni ñooy composant yi nga xamante ni ñoo nekk ci làmb ji ñu gis nag loo xamante ni vraiment ñun amateurs yi lu ñu metti la loolu moo waral tey point de presse bii nga xamante ni tey organiser nañ ko fii benn bi ci njëkk mooy li nga xamante ni mooy insécurité bi nga xamante ni gis nañ ko ci làmb ji mu nekk loo xamante ni du c'est la première fois gis nañ ko keroog combat bi nga xamante ni boole na diggante Siteu ak Papa Sow mu nekk loo xamante ni lu ñu metti la ñun amateurs yi muy insécurité boo xamante ni insécurité total la muy ci biti làmb ji ak ci biir làmb ji te yàlla dogal na bi ñu xëyee la matin ñëw nañ fa visiter stade bi comme ni ñu ko tàmm di defee chaque dimanche di bàyyi suñu ay yëpp di ñëw di visiter stade bi di xool disposition yi xamante ni moom la amateurs yi war a muy ci côté toilette yi muy ci côté chaise yi muy ci biir enceinte bi muy sécurité bi ñu gisoon ne vraiment li fa amoon lépp yàlla def na muy muy lu daloon suñu xel mais bi ñu ñëwee ci buntu làmb ji rek pour ñu dugg ci làmb ji vraiment lu nekkoon jafe-jafe la bi ñu duggee aussi tamit ñu gis insécurité ci biir géew bi malheureusement combat bi ñu fa indi woon ñun amateurs yi muy diggante Papa Sow ak ki nga xam ne mooy Siteu gisuñu combat gisuñu combat te loolu taxul woon ñu dagg suñu ay billets 10 000 francs ndax ñun ay amateur la ñoo xamante ni benn promoteur duñu yóbbaale ca làmb duñu ñëw bu ko buntu làmb di woote naan man la diw dugal leen ma saa bu ñuy ñëw ci làmb dañuy def renfort def bloc ñëw dagg suñu ay billets billet fu mu gën a chéré dañ koy dagg ñëw toog kon tey jii nii yaakaar naa ni bu fekkee dañu dagg suñu ay billets ñëw pour seetaan benn spectacle bu war a boole Papa Sow ak Siteu nga xam ni combat bu duré plus de trois ans jàpp naa ni tey waroon nañu gis spectacle gisuñu nag spectacle bi loolu amee aussi tamit ñu doon xaar peut-être promoteur bi xëy na mu génn def déclaration boo xamante ni dina jégalu amateur yi mais gis nañ ne bi mu génnee moom ay intérêt la defendre foofu aussi tamit vraiment am nañ ci déception total parce que làmb ñun ñoo ko bokk ñun ñi nga xamante ni ñoo si nekk ñëpp gis ne li xew nii ñun ñëpp la dal suñu kaw mais ñun ñooy les grands perdants ñun les amateurs parce que tey jii nii boo boole woon suba ñaari ginaar sax ñu ñëwaat dagaat bi ñëw mais nag dafa fekk que ni lu ëpp tuuru parce que lii nii am nii du c'est la fois gis nañ ko ci diggante Baboy ak ki nga xamante ni mooy Moustapha gis nañ ko ci diggante Nees ak ki nga xam ni mooy Baboy gis nañ ko ci diggante ki nga xamante ni mooy Lagros ak Garga Mbossé gisaat nañ ko ci diggante Aline Sey numéro 2 ak ñax jariñu moo ñëwaat dimanche passé ci diggante Papa Sow ak Siteu ñu xam ne nag lu ëpp tuuru te ñun ci dëkk bi la ñu dekk nekk ay ndaw bëgg suñu jeunesse su réew bëgg aussi tamit lamb avancer parce que arène nationale bu ñu defaree plus de 32 milliards waruñu nangu tey ñu koy yàq à tout moment ñu ngi réclamer loolu làmb ji dangay ngay bëre ñu daan sa mbër wala sa mbër daan nga damm chaise yi sànni ñu gis benn violence boo xamante ni autour du làmb ñuy interpeller nag ñi nga xamante ni ñooy CNG bi di leen dut baaraam parce que tey lii am nii jàpp nañ ne tey jii nii ñoom ñooy les ñoom ñooy les responsables parce que ñoom lañ jël làmb teg ko seen loxo ñu war ko doxal kon tey lépp loo xamante ni am na ci autour de làmb ñun ñoom la ñuy joxoñ parce que tamit gis nañ ne bi lii am amee jëluñu benn disposition parce que tamit du c'est la première fois ñun toujours amateurs yi ñun ñooy perte promoteur bi takk na ay millions dem mbër yi dañuy fayee ko wala sinon ñu jël reliquat mbër bi téye ko ñun amateurs yi après ñu perte waaw mu nekk loo xamante ni nag ñun daf ñu metti ñu bëgg ci saafara bëgg ci jóg nag une bonne fois pour tout parce que tamit xaalis bi ñuy ñëw di dagg làmb chaque jour di ko indi ci làmb foruñu ko dañ koy liggéey te ay responsable lañ bàyyi suñu ay kër chaque jour que jëfee dañuy ñëw di gis violence ba ñu ñi nga xamante ni mooy suñuy waa kër di ñuy bàyyi sax seen xel du dal tant que nit ñi retourné waatuñ ñëw seen kër te loolu du yoon làmb du dem seetaane làmb du force buur làmb sport noble la bu njëkk suñu mag ñi dañ daan gis ñu solo ba rafet ñëw ci làmb léegi amateurs yu bëri nangootuñ ñëw làmb ndax lan violence bi am te loolu lu ñu war a teel a arrêté la parce que arène nationale damay wax ne làmb ju mag amagu fa Ama Baldé Modou Lo bëreeguñu fa Balla Gaye bëreegu fa ah booy ñaa tafaatin bëreeguñ fa te yooyu nekk ay bis yu mag yoo xamante ni amateurs yi ñu ngi koy xaar mu nekk ay combat yoo xam ne ay combat du siècle la kon ku ko xamante ni tey jii nii mënoo mënoo mënoo gérer diggante Siteu Papa Sow mais est-ce que di nga gérer diggante Ama Baldé ak Modou Lo mhm. mhm. mhm. buur loolu ñun duñ ko bañ mais ci kaw aussi tamit ñu am cër CNG mais association bu toll ni association des jeunes amateurs amul benn membre tey boo xamante ni représentant wu CNG la amul keroog bi ñu nommé ñi nga xamante ni ñooy ànd ak président Bira Sène ma koy nuyu de passage pour jàppale ko ci liggéey bi amul benn nit jeune amateur bu ñu jël dugal la ci biir CNG bi kon ñun amuñu droit ñun tey di dox loo xamante ni du suñu role bëri ñoo xam ne jox nañ leen cër CNG jox leen ay carte ñu am accès ci biir làmb amuluñ njëriñ benn njëriñ CNG kon loolu tamit lu ñu war a xoolaat la président Bira bi ñu ko fi tegee ñun ñëpp dañu am yéene jàppale ko mu réussir mission bi nga xam ne moom lañ ko jox mais nag nit dafa am foo xamante ni fa nga mën a yem ci làmb mënuñu tamit di def loo xamante ni du suñu liggéey chaque jour que jëfee ñu ngi liggéeyal promoteurs yi di def seen ay promotion di jàppale làmb parce que ñun image làmb lañ bëgg mu jag parce que làmb mooy suñu sport national beneen sport boo fi mënti gis rek dañ ko jëgaani kon tey jii nii am na loo xamante ni aussi tamit mënuñu porter dem di ko def c'est parce que amaguñu ci ndigal. mais bu continuer non bien sûr buur parce que tamit euh, ay nit lañu et puis tamit vraiment lamb li ma la wax rek seetaan ko du force te ba ñu dalee seetaan lamb yaakaar naa mu ngi bëgg a def ay fan combat yu bëri fii la ñu fekk bu njëkk comme ni ma la ko waxee lamb référence la woon léegi chaque jour ko jëfee da ngay gis ñuy jël lu ñaaw di ko tekki deru lamb boo xoolee tey ñu bëri tey ji Sénégal bëgguñu làmb bu ñu sañoon tey lamb am problème li ñuy xaar nag mooy dara am muy crime wala dara ñu doog arrêté lamb ji te ñun duñu xaar loolu parce que tamit yaakaar naa ni ci lamb ji lañ ne te lii ñuy def nii alerte la Pa Abdou Fall mi nga xamante ni moo tëgg làmb ji bërki démb ñun amateurs yi kontaanuñ ci moom parce que li ñu waroon ci suñu diggante ak moom yëpp def nañ ko jàppale dañ ko ci bis bi def nañ promotion sensibiliser nañ amateur yi ba ci diaspora bi ñi nga xamante ni jënd nañ seen ay code waroon a seetaan làmb ji seetaanuñu làmb ji léegi moom bi mu toogee ci télévision Sénégal yëpp di ko seetaan ay intérêt la défendre comme quoi que tey jii nii man ak CNG sama combat laay xaar ñun amateurs yi ñun signé wuñu ak CNG combat ñun combat la ñu signé ñëwuñu ci làmb pour problème am ñaari camp yi après ku nekk ñibbi CNG war a téye seen ay reliquats depuis que ñuy damm chaise yi ci capitaine Dina ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Super jamono ñu ngi ciy dox ay tànk di ci sonn de gauche à droite di jàppale aussi tamit ay nitu làmb kon ñun làmb jëm kanam rek buur moo ñu ñor mais nag kenn jàppale Mhm. Mhm, mhm. waaw buur loolu dinaa ci sawar a wax parce que tey jii nii comme ni nga ko waxee ministre bi recevoir nañu vraiment ñu jox ko suñu ay idée parce que ñun lépp lu jëmale làmb kanam rek ci la ñuy dox parce que gis nañ aussi tamit ñu defar ñu bijou boo xamante ni 32 milliards la kon ñun amateurs yi ñun amuñu lu dul di leen remercier vraiment mu nekk acte bu noble mais ñun ñi nga xamante ni tey jii nii ñun ñoo nekk ci làmb ji nekk ay amateur boo boolee ñaari ginaar sax ñu bàyyi suñu ay yite ñëw ku nekk ni temps dafa cher dimanche dañuy bàyyi suñu famille bàyyi suñu njaboot ñëw ci làmb nekk fa ba 22 heures 23 heures kon tey ñun war nañu ñu gën joxaat cër comme ni nga ko waxee vraiment ñu ngi def lu ñu mën mais lépp ak suñu ay moyens bopp kenn fekk suñu si du benn nitu làmb bu yëkkati 100 francs jox ñu ko ñu ngi organiser ay ndogu ñu ngi def ay point de presse ñu ngi def organiser ay réunion ñu ngi fexe nu làmb jëmee kanam ñu ngi def social vraiment am ay idée yu rafet ci biir làmb mais nag malheureusement amuñu ñu ñu accompagner kon tey aussi ñu ngi lancer message CNG bi nga xamante ni ñoo fi nekk kuréel bi nga xamante jox nañ leen ko ñu war ko diriger muy làmb nañu xool ay nitu làmb ñi nga xamante ni ñoom ñoo composé làmb ñu dugal leen ci biir bu laajee ñu tas ko sax ñu tas ko defaraat ko parce que tamit ñu ngi leen di xaar si CNG bi ñu tas ko defaraat ko parce que tamit gis nañ fa ay nit yoo xamante ni amul lu ñu làmb benn njariñ Lamine làmb dafa bëri ñoo xam ne dañ koy dundee dañ koy dund dañ dundee mais dundaluñ ko te làmb suñu sport national bu ñu xoolee ba ñu tëj ko wala ñu xoolee ba mu yàqu ñun ñooy ñun ñooy les grands perdants kon na loo xamante ni ñun duñ ko seetaan ñun ku ñu xam ci làmb mooy yëkkati suñu alal di ko def ci làmb di jàppale ay nitu làmb kon tey loolu noonu du ñu nangu ñun mu fi am. d'accord Paul comme li nga expliqué nii jeune amateur kuy wax amul njëriñ ci làmb parce que da nga suivre làmb parce que ñun yaakaar naa ay xale lañu mais ay xale yu suñu loxo set lañu ñu yàgg aussi tamit ci làmb am suñu ku mel ni suñu père Modou Bey mu jiituñu ci làmb xam ci làmb aussi loo xamante ne xëñ na xamuñu ko kon yaakaar naa ne ñun làmb dañ ko tarbiyu topp ko aussi tamit bi ñu nekkee ay xale ba toll fi ñu toll amul kii tey benn champion boo fii lim tey ci làmb te ñëwam ci làmb fekk ñu fi depuis ci ni ba fii may waxee jaw nii kon tey jàpp naa ne ñoom Balla Gaye ay ñoom Modou Lo yor lamb ji tey bi ñuy dugg si ci làmb waxuma la làmb mais seen mbappat sax seetaan nañ ko kon ñun làmb dara ñu si maanaam liñ cër bi ñu ci war a jox nag joxuñu ñu ko loolu damay osé pour wax ko joxuñu ñu benn cër parce que tamit ñu ngi ciy sonn di ci dox guddi ak bëccëg di ci jàppale ay doomu aadama di fexe aussi tamit mu jëm kanam mais malheureusement amuñu benn soutien tey may mais cër bi weesuwul tey CNG bu toll ni CNG bu Sénégal ñu koy formé amul benn membre jeune amateur tey boo xamante ni mu ngi ci biir tey man mii di la président saa bu ñu jàppee sama membre pour ma am accès ci géew bi rek damay am problème parce que awma ma dara lu ma lié ak CNG du benn membre aussi tamit bu nekk jeune amateur buñ dara lié ñu ak CNG te ñun dañu affilié CNG waa non ñun foofu du suñu place euh, Lamine mais nag des fois problème am parce que dimanche passé gis nañu am na suñu benn membre bu tudd Demba bi ñu ko arrêté ñun ñoo wàcc dem rek la ko mug ñëw ni te loolu noonu kon dañu war a am accès ci biir géew bi ñun non si reconnaître ñu parce que affilié nañu ñoo ngi ñuy woo réunion ñu ngi ñuy woo à tout moment aussi président Bira nekk aussi tamit nit ku baax parce que dañuy déglu ñu ngi waxtaan ak moom mais nag de toute façon mais siégé wuñu te loolu aussi tamit dafa am solo amul njariñ siégé bi boobu noonu ñun la ñu soxla membre yi ñu yor nii ay nit lañ yoo xam ne soxlaa lu làmb dara pour lamb jëm kanam dong lañ bëgg suñu alal la ñuy jël di ko jàppale bi ñuy gis lamb nag ñu war ko defaraat war ko defaraat ba nga xamante ni tey sponsor yooyu day ñëw ñun buur lii suñu suwee mooy mbër di fayeeku milliard parce que lamb dafa metti te mooy suñu sport national ku xool diggante Boy Niang Tapha Tine combat bi yàgg na diggante Siteu Papa Sow combat bi yàgg na mbër yi jeexal nañ tàkk mais am na ci loo xam ne peut-être ñu duñ ci mën a nga xamante ni daal ñun moo ñu ñor ñu nuñu amateurs yi gis autour du lamb ñi wër stade bi ñëpp instant jël nañ seen ay matuwaay am na ci ñoo xamante ni tey jii ñu ngi wax ne bu làmb amatee dañuy génn taxaw défendre seen ay intérêt wala taxaw yor ay pistolet pour nit ñi te loolu ñun duñ ko seetaan technopole bi nango nit ñi fa dëkk ñëpp nangootuñu tëdd te pourtant am nañu ay kër dëkk nañ fa ba pare mënatuñ tuxu loolu yëpp nag dañ leen woot sóor làmb ji fi ñu ko def dafa jege biir nit ñi kon nañ sóor nit ñi Modou Lo bëreegu fi Ama Baldé bëreegu fi nañ sóor neen bis yooyu ñooy gën a bis yi ñu jàll kon nañu bàyyiwaat xel loolu noonu message boobu la amoon di ko lancé di waxaat tamit autorités yi nañu gestuwaat amateurs yi jàppale leen CNG bi nañu joxaat cër amateurs yi parce que tamit bañuñu ci dem ba boycotté làmb parce que tamit ay kilifa ñun amateurs yi fii waaw waaw waaw waaw de bañuñu ci ba boycotté làmb parce que tamit ñun li ma la wax rek suñu xaalis la ñuy ñëw di dugal ci làmb ñëwuñu ci làmb di ñaan biyee te làmb seetaan ko du force li ñu bëgg mooy mu jëm kanam kon nag dañuy ànd ak ñi koy jëmale kanam waaw. di ziare yéen waa presse bi ñuy fi teew di ziare li TV Lamine ñu ngi waa kër gi ñëpp di ziare Vox Arena Babacar ak ñi àndal ñu ngi ziare Bool TV ak ñi ngeen àndal yéen ñëpp. di la xamal ne tey amateurs yi ñoo woote point de presse li waral point de presse bi nag mooy Siteu Papa Sow seen combat moo bees rek mais am na yeneen combat yu fi jaaroon demee nii mais amateur mooy perte ci làmb amateur moom la ñuy woy mu may xaalis amateur moom la mbër mi ñëw jege ko. mu koy may xaalis amateur moom la mbër mi daan du mbërëm sax mu may ko xaalis kon amateur gañewul ci làmb kon nag dañu war a reconnaître amateur bi kan mooy amateur xam nga dañ ne jeune amateur mais association amateur des national dañu weesu jeune amateur ndaxte tey ñu dañu am ay yoo xam ne nii ñu ngi bitim réew ñun dañuy dem ak suñuy moyenu bopp ba pare dañuy yaakaar cité des jeunes amateurs ñi ngi koy versé te kon xam ne amateur boobu ñëwul ci na suñuy projet la bokk kon amateur bu nekk da nga war a gis sa bopp ñun ñi ngi jàppalante suñu biir liñ mën mbër yi ñu ngi jàppalante seen biir promoteurs yi ñi ngi jàppalante seen biir journalistes yi ñi ngi jàppalante seen biir kon ñun amateurs yi dañu war a bàyyi xel CNG reconnaître na jeune amateur bu baax a baax parce que appuyé nañ fa nekk ci norme yi nekk ci règles yi kon tey bu làmb demee nii am nañ ci kàddu incident bi li ko war a lépp mooy manque de organisation CNG bi seen organisation bi baaxul nan la mbër di tegee cumbukaayam nga ne mën a jël A wala B mu jël A tëgg katam jëm B léegi buy lagg day jëm B day jëm day romb A jëm B day indi accident te am na mbër am na géwél yoo xam ne ñoo yor cumbukaay cumbukaayu mbër mi yenn ci cumbukaay dafay nekk dañuy bañ nga jaar fii léegi ana CNG bi ana membre yi nekk ci biir ana ñu doon organiser bi si ta ñëwee jël cumbukaayam toog ci yoon CNG bi dañoo war a déplacer tëggkat yi ne leen dem leen toogee ne seen mbër fee lañ toogee gisee li am nii démb li am li ci ëpp CNG bi la. CNG bi lañuy ñuy daaj du moom la daaj baaraam ñoom ñoo li ko waral ñoom la man dama koy wax wax naa ko feneen fu fii. ko organisation bi korog baaxul gero te plus toog naa bureau Matar Ba bi mu ñu recevoir ma ne ko CNG bi ñu ci nekk ñëpp ay màggat lañ ngeen bàyyi ko xel dama koy wax ñi ci nekk ñëpp ay màggat lañ ñii ay mag lañ am nañu feebar yu ñu yor. ñii ay jabet lañ yor te mbër yi dañoo doon ay xale yoo xam ne dañuy entraîné ba fees del nga bëgg a taxaw seen kanam naa la awal fi awal fi bu ñu la fiiree nga daanu dara am fa ko baa mbër moom dana am problème nag ñoo fa nekk ñoom ñoom la rek système bi waaw li ñu bëgg nag déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet ñun ay amateur lañ intérêt làmb la ñuy wër ñun tey ji Lamine làmb ñoo ci sonn Lamine chaque dimanche dañuy fere benn personne bu nekk lépp 20000 ci lamb bu dee Ibamar bu dee euh, arène nationale xamuñu li ñuy financé kon xam ne ñu ñoo ciy perte Lamine te pour ñun suñu biir nii li promoteur yi organisé mën nañu organiser noonu am nañ suñu maynu bopp léegi ñun ñëwuñu fi pour pour ay président CNG ñu jël ko feeg yooyu déedéet président CNG bi dañ koy doog a fal ñaan mandat bi réussir mais na xool bu baax a baax ni ñuy organiser lamb nañ jël ñoo xam ne nii ñeneen ñoo xam ne ay ndaw dañ leen di boole seen biir. ñu mën a organiser géew bi ànd ak sécurité bi da ngay xool promoteur bi day jël fay frais des organisation boo ko xasee fay CNG bi cinq personnes ñoo nekk ci biir géew bi ku nekk yor sa bi nga fooy xool benn mbër bu la neex nga kose xool benn mbër bu la neexul nga kose pourtant man dama koy kaas damay kaasal ay mbër wàcc suuf kaasal leen man damay jël samay responsabilité boobu dimanche jël naa responsabilité jël micro central bi wax ci loo xam ne nii bi ma ko waxee amateur waaw mooy bi accident bi amee man avant accident bi Lamine ñëw naa sa plateau toog lu ma wax dama ne biti bi sécurité ba fa nekk amul sécurité biti bi ndaxte man ndaxte man bi may dugg si bi may dugg si sama oto xatuñ yàqu ak oto ñeneen ak ñeneen te gis naa ay boo yoo xam ne def lu leen neex te ñëwuñu ngir dagg billet làmb am na comportement booy ñëw war a dagg billet dañu la war a dàq boo amee billet sax dañu la war a génnal stade bul duggee stade bi ñun dañuy ñëw stade kenn duñu a ànd gis na li waral tëgee li am ñàkk yar rek ñàkk yar rek moo indi loolu te loolu bu ñëwee ci làmb bis bu amee ci làmb doo làmb dootul daw Sénégal te ñun làmb lañ bëgg ñun làmb lañ bëgg kon nañ ci jàppale ndaw ñi ñi ñëw ci làmb di supporter sa mbër ku bëgg sa mbër avancé da ngay xam ni nga koy ànd ak moom di ko ci jàppale te yàlla tax supporter ko bu daanee nga xam ne moo daan bu daanoo nga xam ne yàllaa ñëw sport bëri ak daan ak daan ñu ànd loolu faw ñu koy bàyyi xel sport il faut kenn gagner il faut kenn perdre ay nit lañ ko tabaxal maanaam ay nit pour ñu jariñoo ko pour nga ñëw toog service parce que dañ daan dem Demba Diop di dem Iba Mar Diop boo amul billet bu seer doo toog ci seize. Mhm. fee fépp ay seize la yaa ngi dégg nit ñi ñëw ci làmb yi ñoom ñëw nitoo di ba tax ñu ne am arène bi ni ñu ko tabaxee baaxul wala lan la parce que arène bi maanaam tabax bi boo xoolee dañ ko méngale ak jamono. ñu naan am na ñoo loolu Babacar loolu toj gi defaraat ak tëj gi doxalaat gis nga arène nationale li tax gars yi naan baaxul benn supporter gis nga support place supporter gis nga tey jii muy Afrique mu doo leen yëbale ak Europe gars yi nag loolu lañ bëgg moderniser mais supporter bi nga xam ne day ñëw gis nga tey jii mbër dina indi supporter boobu ne xamu ko mbër day ni supporter xam te gars yi dañu tàmm mooy gën ba ci nawetaan li am ci nawetaan moo am ci làmb léegi làmb bi ci fan si léegi defal naa làmb bi ci fan si club duggee Babacar bi ci fan si club duggee la làmb yàq Babacar ñun 96 lañu daan séen làmb 96 lañu commencé séen làmb non non non non xam nga la ma demale gis nga ñun boycotté woon xam nga amateur yi boycotté nañu làmb Babacar amateur yi boycotté nañu fi làmb ñun dañoo demoon ba kuréel gi ñëwoon ci làmb xam ne dañu daan toog dañu daan def bu dimanche combat bu mag bu amee comme premier combat bu may fàttali wax moo amoon heure ba yenn combat yëpp dañuy dajale suñuy 10 000 li ñu war a biyee dem sa kër jox ko sa jabar mu jënd xar togg ndawal ñu toog fa saan ko ci télé bi waxtaan def fa genre association mbër gu loo moo ko jiite woon ak xayeen yàlla ko yàlla yërëm xar ko àjjana kon xam ne man xam naa ci làmb dara yàgg naa ci Babacar dama ne la bi bisu la ñu may macha allah dañ ko doon réclamer supporters yi fay ñëw di yàq ñoo warut a yàq CNG bi ñu ko jox ñoo war a xoolaat seen organisation sóoraale amateur yi sóoraale supporters yi fi mu toll nii supporter bu yàq ñu daan ñu teg ko mbër. support supporter bu bu yàq ay supporter camp bu yàqee mbër mi lay teg daan bi te mbër mi dina ay supporter dina ko ñëwal ñeneen dinañ ko ñëwal ñun ñëwuñu pour ne la nañ fi jëlee CNG déedéet. ñëw pour ne nàngam nangam mais dañu am suñuy bët di constater de chaque dimanche ñu dagg suñu billet ñëw bàyyi suñu yitte ñëw kon dafa jot tey jii ñu jox ñu cër bi ñu yellool cër bi mooy lan kuy ñëw làmb ñu nga am fekk fa sécurité bu doy xam ne booy ñibbi sa xel dina dal yéen ñii sax yéen sax yi ngeen dem ci benn ëpp de presse ñu nangu seen caméra sàcc leen wala ngeen dem ci stade bi yéen saa yi ngeen di génn ñu sàcc leen yéen journaliste yi ah bii gis nañ waa kon nag léegi nag loolu nag dafa war a jeex sport la ñu wax sport la ñu wax tey sport bi suñu sport national la le président du CNG Birane ak ñi koy liggéeyal ñoom war nañu defaat seen beneen jàngat ci li xew démb parce que am na combat yuy jëm ci kanam muy diggante Modou Lo Ama Baldé. gis nga kon léegi dafa am jàngat bu ñuy def xam nga toog naa toog naa ci benn plateau télé ma ne leen li nekk ci bi gis ngeen ko est-ce que Modou Lo Ama Baldé xaj na fi. ki ma ko laaj pourtant bi nga questionné daf na ma déedéet xaju fi ma ne ko sécurité bi li nekk ci biti xajuñ ci biir te jënuñu biir man maa dem ci ab plateau Fall direct taxaw téye ko wax ak moom ne ko Pape Abdou mu ne ah ko yaa ngi ci biir làmb ji mais li ne ci biti garaaw na mu ne ma lan ma ne ko ñi ne ci biti ñu ëpp ñi ne ci biir te jënduñu billet nañ leen fa jële mu ne may woo nañ renfort mi ngi yoon jële pourtant bi ma dawaatee tuuti def naa constat boobu li wax def nañ ko nañ fa ñooñ ñëpp te pourtant man bi ma koy dem di ko jël dama jël en tant que amateur yor porte yor doon porte parole amateur yi moo ndaje bi Babacar ndaje bi nii du ndaje du ndaje boo xam ne nii dañ ko fara fara nii rek déedéet ay amateurs yeneen yoo xam ne bokk ñu suñ kuréel war a ñëw ci amateurs yi ci boppam dañuy woo téléphone di ñu xamal lañu yéen pourquoi waxoo leen te dañoo war a wax te làmb dañ ci bokk ñun ñii ñëpp kenn ku nekk mën na organiser làmb tëgg làmb ñun ñii ñëpp waaw. sécurité bi nag bu doyee ni mu war a doyee. nga xam ne foo fu supporter taxaw ñetti policiers yi seen yoon wala ñeent kon kenn du daa gis sées gis nga sénégalais moo gën a ragal yoon moo gën a ragal policier wóor na bu yàqoo ko ji te des fois am na ñoo xam ne dañ lu wér te gis nga sax dama lay yokkal fenn gis nga bu ñu waxee tribune amateur man maa tax bu ñu nee Iba Mar tribune amateur man Balla Diop man maa tax man maa doon def suñu ñëwee gars yi supporter yi bu ñu yéegee toog côté boobu ñëpp dinañ yemale benn billet 1500. bu ñëwee toog suñu wet dañu xëpp ndox nga jug kaas waxuloo ñoom nag histoire ñor na wàcce ma ne xaaral ma wàcc gis gis per ipo am na ma def moom ak njoxo ñu taxaw woo sécurité bi ñëw leen wàcce ñi ñëw leen wàcce ànd ak Babacar mi dem journal suñu làmb kaas ko bi ma ko kaasee article boobu ki njëkk a tëgg làmb daf ci jël expérience jaay ñu 3000 amateur jaay fee 1500 te bi mu ko defee fee dafa am jàmm te moom loolu la Iba Mar di dundee ba léegi te mën naa ko njëkk a kas man ak Babacar ñu ànd ñoom fu ñu bokkoon dama koy wax direct muy groupe baax waaw groupe baax ñu bokk groupe baax ni koy wax dama koy wax direct ñu bokk groupe baax ñu ànd dem ñu kaas loolu bi ñu ko kaas dañ ko loolu bi loolu amee lu loolu ba bu loolu amee tey jii ah kon loolu ñun am na rôle bu ñu ci joué jeune amateur nag jeune amateur ak ñi nga xam ne ñi ngi biir jeune amateur dama le la jeune amateur man amateur national laa wax amateur national amul jeune amateur fii amateur bi ñu fi reconnaître nga xam ne nii yor nay papier am adhéré lu CNG laaj ñu jox ko mu ñu woo réunion mooy amateur yi ngeen gis. mais loolu boobu ba pël euh, est-ce que maanaam boo dee yow des amateurs yu bokkul jeune amateur moom association la bu ñëpp ne association mm-hmm. mm-hmm. ba am ci réseau bi sa ak cooy kayit

bokkul ak fan si club wala bokkul ak nangam di dem ci gis nga sànq Paul posé na ko question président ne ko est-ce que du ngeen dem ci base bi xaw ma Paul la xaw ma dina dem ci base bi di wax déedéet ñu ne yor suñu liggéey yor entreprise lañ jiite kenn ku ci nekk da ngay jiite entreprise da ngay liggéey benn làmb dimanche muy samedi dañuy dem stade bàyyi suñu yittee dem ñu ci ay écurie di sensibiliser waa écurie baak yooyu loolu du rôle amateur loolu rôle si club la fans club bi mooy def noonu mooy fans mooy mooy nekk ci biir écurie ba di waxtaan ak mbër yi di waxtaan ak ay fans club am mbër mi mooy waxtaan ak ay fans club am ñu ne amateur la du ñu ay fans dañuy ñëw làpp démb musuñu nekk supporter déedéet xam ma la moo tax musuñu nekk supporter xam nga ma dugal ci làmb man daan taxaw bunte saat ñuy tëgg ba mayee porte ma doo dugg yenn saa yi damay dugg sax dama xam bëre kuy bëre su ma fàttale ko daam sukeer si taan naa combat gisam na ni Balla Gaye 2 ay mbapatam maa ko ñu ne kan takkal ngemb ñuy si amee ci laa bokk ay ñum tafaatim ñoom ñëpp mbapat ma yëg ci sama xaalis di ko di ciy def kon ñun dépassé nañu ay supporters ñun ay supporters duñu dem ci benn ci benn écrit naan dañuy sensibiliser li ñu mën a def sensibiliser mooy ñi nga xam ne xam nañ ne bëgg nañ làmb te bu ñu ñëw da leen di jar a billet bu seer ñu fexe ba dugal leen suñu kuréel jaay leen carte membre ñuy def li ñuy def ñu àndandoo ak ñoom di ñëw ñëwandoo di xàccandoo di dóorandoo te gis nga tey jii dina la cité des amateurs de maa ngi koy incité di ko wax suñuy versement man na site la amagul ak promoteur bu ñu jub bu bu ànd ak ñun. déggoo dama ne la sëñ bi suñu cité cité des amateurs de lutte taxaw na projet bi site bi la ñu amagul ak promoteur bu ñu bu ñu gunge. benn ñaareel ba mooy temps yee passé rek tabax nañ benn daara boo xam ne toilette ñoo ko tabax ci Pikine jeune amateur ko def te laaj di moyenu kenn dañuy jàppale ne suñu. suñu biir social boo xam ne nii kenn ku nekk ci amateur yi ñi bëgg a ñëw ñu bari sax loolu moo tax ñu ñëw ku xew la day mel ni amateur yi ñu jeune amateur ñëpp a léegi foofu tamit ah, ba léegi pël gis nga sabar moom foofu mu am ci làmb benn te kenn ku nekk da am batteur booy bu lay indi am batteur central li ñuy wax foofu mooy CNG bi yor organisation bi foofu moo war a jël matukaayam foofu ndaxte ñoom bu doon ñoom làmb ji du neex làmb ji amul mais avant neex na mais nag tëgg sa sax amul droit ne mbër fii ngay jaar ak yooyu amul droit wax ko amul droit lu mën a xew amul droit tëgg sabar amul droit tey lutteur bi nga xam ne dafa yor licence am war a bëri amul droit di ko téye ne ko fii ngay jaar ak yooyu mais tamit intention bi fa lutteur bi ñëw tamit baaxul seet naa ne bu ñu daloon tuuti rek dina réglé wu foofu dañ fay bàyyi CNG bi war mais ñun décision CNG bi na bàyyi xel amateur yi foofu la ñuy waxee promoteur bi intérim lay kaas amateur bi intérim lay kaas tey jii bu ñu ñëwoon yàlloo yàlla promoteur bi ama CNG delloo na ko xaalisam kon am ah ah promoteur bi for delloo ci amateur yi seen xaalis ci yoon ñun Papa Sow Siteu moo ñu indi woon combat yi doon seen at bi dafa doon werante ci combat bi rek fa lañ nekkoon di werante bu waxtu julli jotee ñu dem julli ji ñëwaat toog di werante combat yi doon ci benn grand combat lañ doon xaar te man làmb Babacar promoteur yëpp ak may dégg musuma taxaw ci benn buntu esaat naan yëg naa damay jënd suñu billet gis nga ni luñ ci war a fere dañ ko ciy fere jéem a jéem a tàkk gis nga tey jii ah naa jël naa fi ñetti risque ci làmb yoo xam ne nii jël naa fi ñetti risque ci làmb yoo xam ne bu doon amateur wala ñi ma xam ci làmb du ma ko jël waaw benn da gis booy boo xam ne def naka su noonu. yow nga ñëw wax ak moom mu saaga la nga wàcc dem woo ab sémi ne ko kii nangam naa mu wax gan ko man porte parole amateur yi mu wàcce ko ay booy mi àndal di ma saaga te mënoon naa gën ñu yàq li ma yor te pourtant dama xam ne kii li mu def jaaduwul moo tax ma ko te dama ko avertir mu bañ ñaareel ba ñaari mbër dugg nañ ci loos di xeex ñu fekk ñu ci loos bi xeex ba nar ñu sonal dama wàcc jël membre CNG ñu filmer leen maa tax ñu convoqué leen te pourtant ma leen ko wax ne leen lii ngeen def nanganam am mbër toog na sama place ma dagg sa billet ma ñëw di wax ak mu ne ma dama du ma jug ma ne ko barke alxuraan da nga jug ndaxte sama billet laa dama ko jënd bi mu werante werante damaa wàcc woo sécurité bi mu ñëwee daf ko yëkkati te daf maa saaga ba ma tooy ma muñ ko te xam ne sama bëgg-bëgg la lu ne dama ciy fekk maa ko bëgg dama bàyyi dañ bàyyi suñu liggéey ñi ñëpp ñëw fii ngir lan lu jëmale làmb kanam kon ngalawaay sport bi buñ ko yàq dañ delloo si waat xel yi te xam ne lii foo la ak réeg am na kuy gagné am na kuy perte faw mu am te it CNG bi damay interpellé fenn ci mbër yi laay wax foofu mooy saisi supporters yi damm ñu jël toor bi daf ko mbër mi téye licence am téye xaalisam dañ ko bàyyi xel man wax naa leen ko seen biir bureau ñu ne léegi boo teewul mbër mi koy téye man di leen non sécurité bi nañ identifier ki booy ki njëkk def loolu ñu jàpp ko mbër mi ñaata bolo gi billet lay jënd indi naa ko supporter nga am dam yàq nga am dafet yàq est-ce que mbër mi moo leen wax ñu yàq ñaata mbër lañ téye seen xaalis ak seen seen euh, seen euh, licence ba pare defar leen ñu ne waaw dañuy defar ñu ne ñoom ñooy xool ba heure bu leen neex ñu woo leen pour ñu defar loolu lañ fa teg ci taabal bi maa ngi may toog ma ne la ah boo ñu ne ma ne la war ngeen bàyyi xel nag ne xam ne ñii dañ yor kër te xaalis boobu reliquat boobu la ñuy yaakaar kon nañ ci. di wax ci lamb ay amour lamb lañu ay passion lamb lañu ñoo fi nekk. Euh, di kontaan bu baax ci association jeune amateur avec le président Gorondoy ak membre staff bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu axlu làmb di nuyu presse bi bu baax a baax di kontaan ci ay ndaw ngeen toll ci buntu liggéey ci Sénégal seen xel nekk ci làmb ngeen nekk ci di ci yëngu kon làmb famille la dañoo war a bokk ndey bokk baay yéenante jàmm moo wax leen ay anecdote yu am solo ci làmb démb ak làmbi tey dama seetaan ma Yoro ak Mbaye Gueye muy muy mu nekkoon mu nekkoon lamb joo xam ni lamb ji amoon solo la stade bi foo sànni baatu mu tag te jeex na ci jàmm te amul benn violence ma seetaan béy ngay Double Less ba léegi verdict bi amaguñ ko démb jóob la woon stade bi dafa fees ba foo sànni baatu mu tag te mosul am benn violence ma seetaan Moussa Diame Double Less même chose lamb mosul am violence mais contexte génération yu ñëw mentalité yi ñëw jeunesse bi ñëw ak jeunesse yu dem bokkuñu parce que éducation dafa manqué ci làmb ji soo xoolee arène bi rek nga dem ba Diop nga xam ne am na y a une très grande différence ah, ndaw ñi dañu war a yaru parce que suñu yàlla defalee ci xéewal làmb ji dox ba egsi egsi fii nga xam ne bu njëkk ah, sites yi amul woon wallahi soleil moo fi nekkoon rek soo ma toppee ma génn la journal boo xam ni journal Double Less loolu ak Mbaye Guèye 76 maa ngi maa ngi ko denc ba léegi soo ñëwee ma génneel la Double Less Double Less Moussa Diamé journal la maa ngi moom ba léegi te lépp 77 76 la woon ah station jeune amateur nag ay jeunes lañu nekk ay amateur ah nekk ay amateur di doxal làmb yàquñu làmb dañuy ñëw pour defar làmb kon à station jeune amateur na leen bàyyi xel bu baax moom mooy groupe baax rek groupe baax je suis je si membre fondateur groupe baax groupe baax maa ko maa ko maa te non violence la ñuy xeex rek ci diggante Modou Lo ak Balla Gaye lu yàgg la loolu moo waral groupe baax mais ñii nag ay jeunes amateur ay jeunes amateur lañu maa ngi maa ngi leen fekk ci kaw tribune bi ak yi daal yi ñi ngi buñ ko fàtte ci kaw la ma fekk jaay ma na de membre na ma dañuy créer association jeune amateur ba ni ko góorandoo jëlee tey muy dox ñuy liggéey kon dañ leen war a bàyyi xel jox leen seen cër ay jeunes lañu comme yéen presse bi ñu jox leen gëdd pour pour lamb ñu mën a avancer te violence yorul lamb gis nga man mi di wax ak yow fu ne laay dugg si fu ne équipe bu rek laay taxaw chaque saison danaa may lu ma dix dix mbër xale yu ndaw dinaa la may combat te kenn du ma jox cinq francs le 12 décembre damay dem damay dem Ibamar ak fay production yàlla na motali yàlla yàlla na yàlla li yéeneem xale yi fa nekk yëpp grand combat bi maa ko monté diggante Sibel ak Bébé Saloum amul benn mbër moo jox cinq francs monté naa fa six combats yëpp pour jàppale bi rek. kenn duma ci laaj kenn dërëm ndax ñun suñu liggéey mais doy na sëkk yaa ngi dégg CNG bi dañuy ñaan yàlla ñu xoolaat liggéey bi rek te encouragé Bira Sène bu baax Bira dañ koy encourager des fois lamb dañ koy lamb dafa leen dépassé des fois du dëgg CNG dañ ko fi teg pour mu liggéey lamb jàppale lamb mu bàyyi xel association jeune amateur di wax CNG bi nañu xool nitu làmb yi ñu dugal leen CNG bi pour lamb ji avancé des fois li des fois mu dugg ci lamb ji mat ndax man chaque jour maa ngi ci lamb ji léegi la ma gis ñoo xam ni vraiment vraiment ñu ay nitu lamb te xamuñu lamb lamb da koy jox ñu ko xam pour lamb avancé pour ñu jàppale jeunesse bi Bira nag nit la rek te nit matul mais na woo nitu lamb yi woo les jeunes amateurs dugal leen ci lamb ji am fa ay ay membres mu dugal ci biir ñu ànd ak ñoom pour sécurité pour sécurité lamb ji parce que làmb ji violence bari na yàq bi bari na violence bari na yàq bi bari na te làmb nag famille réew mi ñun ñoo ko bokk réew mi ñun ñoo ko bokk nañ ci bàyyi xel famille la ñu nañu yéenante jàmm ci làmb ji te jàppalante te waxante lu baax te ku nekk sa cër bi nga moom ñu jox la ko pour Sénégal jëm kanam parce que jeunesse jeunesse jeunesse bi ñu ñu yor ëllëg ñooy mujjee ñoo mujjee làmb ji kon nag à jeune amateur góor a dama leen di encouragé ngeen gën a jàpp yéen ngeen gën a mànkoo ngeen gën a doole seen bopp ngeen gën a am fulla ndax ku leen xool xam ne ay nit ñu baax ngeen ay responsable ngeen te yàqu leen làmb te fu làmb fu bien cher ngeen jënd ko ñëw toog yéen ay amateur ngeen kon ne leen Sénégal bàyyi xel ne leen CNG bàyyi xel man loolu laay message laay message bu laay laa laa di laa di jox di leen encouragé nag ngeen juboo bokk ndey bokk bàyyi bu seytaan dox seen diggante ndax làmb ëllëg Sénégal dafa leen soxla ëllëg te réew mi ñoo xaar parce que toog naa yéen ak Matar Ba du benn du ñaar toog naa nii Matar Ba toog ma toog ngeen toog du benn du ñaar moo tax dëgg la li ma ko wax na gestu jeunesse senegal na gestu jeunesse su làmb nañ bàyyi xel ci mbër yu ndaw yi pour ñu am dara suñ ko defee ndax koo koo jox respect mu jox la respect koo yërëm mu yërëm la nañ joxante cër Sénégal dañu war a joxante cër pour Sénégal jëm kanam baa ngi jégul ci kàddu ngeen baal rek yàlla na yàlla yàlla ngeen jëm kanam yàlla na làmb ji am jàmm li ngeen yaakaar muy sit yi ngeen ngeen di ci gaj seen teraanga. ñu ngi leen di nuyu di nuyu mbokk amateur yëpp. di nuyu le monde de la lutte waaw man ci lu may ñëw rek comme le président et le porte-parole presque wax nañ lépp mais damay ñëw tuuti rek ci li nga xam ne ne mooy moo nekk arène national ak les lutteurs parce que danoo gis que ne chaque jour lutteurs yi lutteurs yu ñuy sanctionné chaque jour sanction yu ñu leen di jox am na ñu bëri ñi nga xam ne ne bàyyi nañ ko parce que dañ ciy gis dañ ciy gis ay sanction mais danoo gis que ne am na lutteurs yu bëri ñu ngi leen di sanctionné te ñoom defuñu dara yëguñu defuñu dara yëguñu donc pourquoi pas maanaam CNG jël responsabilité am avec ñi nga xam ne ñooy la sécurité di di di di identifier ñi nga xam ne ne maanaam doonuñu ay dara dara dara dara dara dara lu dul ñu may la billet nga dem stade parce que soo xoolee booy léegi yu bëri dañ lay may billet dugal la ci car nga dem stade yow fayoo dara ba pare di yàqal mbër mi di yàqal les amateurs. kon ñooñu noonu war war war war nañ di leen identifier vraiment di ci jàpp ñenn ñi nga xam ne ne ñooy ñoo ñooy yàq parce que man mënuma concevoir sax ab ab ab supporter yow ñu sa mbër daan ba pare ngay yàq man loolu moom ma gën a jaaxal yow sa mbër daan ba pare yow ngay saccager ngay yàq yow su suñ la daanoon sax mën nanoo wax que ne da ngaa mer mais yow tu es dans la joie ba pare ngay yàq li nga xam ne ne maanaam ñun ñoo ko moom nan identifier na voilà ba pare ñuy teg coono mbër mi ah da ngay gis benn mbër mi nga xam ne ne moom lu nu yàq sax ci télé bi la koy gis te day sensibiliser nit ñi mënul nit mënta nekk mënta mënta mënta nekk ci biir këram nekku fa li nga xam ne ne mooy la la politesse ba pare nga bëgg koo génn ci mbedd mi mu am fa mu am fa mu am fa la politesse loolu mënta nekk kon il faut ñu yar leen te ñun leen yaree nag c'est des dañuy dañ leen a war a yar maanaam sévèrement di leen identifier di leen jàpp te parce que damaa gis fii Sénégal koo jàpp ay mbokkam génn nit ñi génn di ñaan ay ay njekk ak wala toj mais il faut mu am ay ay sanction ñu leen di sanctionné waaw man loolu moom moom metti quoi vraiment non mais fa lañ jëm parce que yow soo demee stade fi mu toll am na ay rangées yu bëri yi nga xam ne ne si weñ ngi ngay toogee noonu parce que yow soo xoolee et puis damay ñëw ci wàllum sabar di interpréter ñëpp ñi nga xam ne ñooy géwél yi gis nga à l'époque cinq combats moo daan am te cinq combats yi dina am presque cinq batteurs sax wala quatre batteurs à l'époque ñuy nekk foofu di xeex xeex di am ñu wàññi ko ne seulement que ne ñuy bëri grand combat yi ñoom ñooy am ñoom ñooy am batteur ndax loolu lépp voilà kon soo tëggee ba pare lamb normalement soo tëggee ba pare suñ tëggee ba pare tëggkat yi suñ tëggee ba pare nan leen yéegal ci kaw ñu dem ci kaw comme ñu nuy def yenn accompagnant mbëri ku bàkku ba pare ñu nga nekk ci ginnaaw ñaari nit rek ñoo am droit mais yow da ngay gis da ngay nekk stade lu gën a métti da ngay nekk stade tëggkat bee di tëgg fee tëggkat bee yow pour fini yow bopp bi mett ngay jëlee stade parce que doo fa dégg benn tëgg bu am njariñ parce que tëgg bu bëri tëgg bu bari waykat yi nga xam ne ne mooy batteur central bi moom moo war a tëgg woykat yi di way loolu am na ñi nga xam ne moo leen ni indi stade mais yow tëggkat bi day tëgg fee te ku nekk di bëgg a wane seen bopp te duñ ci dara ku ci nekk wane seen bopp rek lan fa nekkee mais duñ ci dara tëggkat yi duñ ci dara am na ay mbër yi nga xam ne ne tëggkat bu leen jege sax ñu ne la su mu waay taxawal fee kon tëggkat yi man li nga xam ne ne moom laay wax waa CNG tëggkat bu tëggalati mbërëm ba pare na yéeg kaw tribune mu dem toog fa ñu bàyyi fa batteur central bi nga xam ne ne dinañ mën parce que ñun déjà les amateurs rek dañuy déplorer loolu parce que dañuy nekk stade à tout moment yaa ngi dégg à tout moment su ñuy présenté mbër sax doo ko dégg parce que am na ñi nga xam ne dañuy ñëw stade mbër yi ndaw yi xamuñu leen su ñuy présenté mbër yi foofu la ñuy xame maanaam mbër mii nu mu tudd ak benn écrit la nekk mais dañuy présenté mbër yi ñee dañuy tëgg tëgg rek ku si nekk dëgg bëgg a sa bopp victoire nekkul ci ay sabar victoire ci ci ci ci ci maanaam ci yow la nekk yaay entraîné ànd ak say mbokk ñëw